5M TV Sénégal mbokk yi siifuru 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm borom audio ya di Gaston Mbengue ginnaaw bi nga xamee ne rek fan yi rek eh, ñi ngi gis ay audio yoo xam ne mi ngi circulé ci réseaux sociaux yi mu ne kàddu yu ñaaw la moom mi nag di Gaston Mbengue nag fan yi rek gis yi nga xam ne mooy circulé ci nekk loo xam ne lu ñaaw la moom mi nag benn site internet defoon na ak moom ab interview di ko laaj ci digganteem ak Malick Gakou moom nag mu yëkkati ay kàddu di attaqué ki nga xam ne rek moo di Malick Gakou di ko wax ne daal yow moom lépp lu wax rek dëgg la dem banaan ko sax Sonko moo tane parce ci amul preuve ci loolee waaye nag yow si yëpp ni la jiñ nag am nañ preuve yow mi daal amoo lenn loo wax mu mel nag ki nga xam ne daal moo di Gaston Mbengue daan na mere ki nga xam ne rek moo di Malick Gakou moom daal def nag moom nen mii di Gaston Mbengue voilà kon mbokk yi jox leen dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ca ànd beeg 5M TV Sénégal ngeen wéy di abonné di partager vidéo yi jaa ngeen jëf ci topp gi ak safa ak nama gi jaa am mbokk yi dund gu neex dafay ànd ak xol bu féex yaram wi di féex xol bi di féex ngir nga mën a dund taw féex loolu lépp soo ko bëggee nag da ngay seet sëriñ seex borom a seet sa yaram li nga ciy wayaale ci ay a seet say mbir procès bi ngay tàmbali di laam-laamee dina baax wala du baax yoon wi ngay waaj wala waaj yi ngay bëgganteel di am xel ñaar seen diggante ànd naam àndul wala ndax seeni boo jokkoo ak sëriñ seex borom taw féex dina la ci gindi wan la teg sa tànk te li ci gën a neex mooy foo nekk ci réew mi ak bitim réew jokkool ak moom ci téléphone mu seetal la wax la li nekk ci yow waaye sëriñ seex taw féex yëmul foofu foofu indi leen jaar bu kiimaan jaar boo xam ne bayre ci ubbi ko nga ci ku ne bayre nag na cat ak làmmiñ ndax ku ñu xam foo jëm doo yegg kon nag yemi cat sonal lool say jafe-jafe bëri loo yaakaar mu tas loo yor toog sa loxo demal nga seet sëriñ Seex borom tawfeex waaye yemul foofu andi leen garab gu mucc ay baax ci li jaaxal ñëpp muy ndoxum siti bi nëbbu wala bi feeñ di saafara hémorroïde interne wala externe waaye efficace lool ci néew kàttan kon nag jokkoo leen ak Serigne Cheikh borom Tawfekh ci numéro téléphone bii ci 78 639 84 90 wala ci 70 733 32 32 bis bi ngeen jokkoo ak Serigne Cheikh borom Tawfekh da ngeen xam ne adduna baaxoo coow rek waaye ku wér ku ne xam ne kala